à notre armée nationale qui est une vaillante armée, mais également qui est une armée au service de notre nation pour son développement. À la jeunesse, pour qu'elle puisse s'imprégner de ces valeurs, de Diom, de Mougne et de Kersa, les valeurs qui font le fondement même de la nation sénégalaise. Mais ne pas finir sans me féliciter que ce défilé se déroule devant notre ministère ce ministère des Affaires étrangères qui porte aussi l'histoire du Sénégal, qui fait la diplomatie du Sénégal, dont le chef de l'État dessine les plus grandes lignes. Voilà pourquoi je suis fière d'assister au défilé de ce matin. waaw xanaa di kontaan bu baax di rafetlu ah di sant yàlla nag subhanahu wa taala di julli suñu di julli ci yonentam alayhi wa salaam di wax ni liñ fi tax a daje tey lu rafet la ndax mooy bés bi nga xam ni réew mi moom na boppam bés boobu nag gis ngeen président la république lu mu ci wax dafa ne dañ doon aadawu di def défilé bi nga xam ni civil yi ak militaires yëpp ñoo doon ànd def défilé boobu te nag yàlla def militaires yee défilé mais nag bés bi bésu soldats yi la dañu ne 4 avril soldats yi ak ndaw ñee ko moom boo gisee soldats yi moom ko ñoom ñoo yore suñu kaaraange réew ba tax lu ñu wax rek ci wàllu kaaraange suñu xel ci ñoom lay dem ñu def défilé bu am solo te président nag nekk seen njiit en tant que chef suprême des mais mu nekk tam ba su xale yi xale yi nga xam ne dañ leen war a ñaax ni soldaar yi mel ñoom it ñu jéem a mel noonu am jom am muñ am kersa donc loolu yëpp day wane ni bés bi bés bu rëy la man nag en tant que ministre affaires étrangères ma rafetlu bés bi am fi tey ci suñu jàkkaarloog suñu kër gu rafet gi nga xam ne diplomate yee ko moom nga xam ne kër gi tam diplomatie lay doxal te diplomatie mbirum président de la république la loolu yëpp ay mandarga yu rafet la moo tax sama teewaay bi tey ma ànd ak si kontante bu rëy thank you